faadal mi nga xam ne moo toogee jotaayub sëriñ Masamba Kanni te ta daaira hadaiqul fadail soppay sëriñ Masamba Kanni bii nga xam ne ci seen tur lay wax ànd ak moom liggéeyub sëriñ Touba yi ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mbooleem njabootu sëñ Masamba Kanni gi ñuy joyal suñuy waxtaan ci sunu bokkit taalibe yi ak sunu cant ci Cheikh Mouhamadul Fadal ak sunuy ñaan sëñ bi gannaaw bu ñu la ñaanalee suñu borom yàggal la fi lool te wéral la ak mbooleem njabootu sëñ Masamba Kanni gi yëpp ñi ngi lay seereel ne la daayira bi nga xamante ne fedd li nga fedd li lool nga nu sunu laxasaay ci turu daayira bi ñi ngi maase di xam ne ak di fas yéene ànd ak yow liggéeyu sëriñ Touba ba fépp foo xamante ne joxoñ nga fa rek fekk ñu ñu ñu ñu jëm fa ñu maase ànd fa ak yow ba lépp loo xamante ne joxe nga ko ndigal ñu maase def ko na nga xamante ne noonu nga ko bëggee waaye ñuy yalwaan suñ bokki taalibe yi bu baax a baax a baax a baax ci ñu gën a takk koo fas fas fasantikoo bu baax a baax ci liggéey Sëriñ Tuubaa yi ak dayre bi te ci soññee bu baax a baax a baax a baax di wax ne daaira bi mooy sunu ngànnaay ci kër sëñ ma Kanni mu ñu bu ñu ngànnaay loo xamante ne saabu bu sëñ Massamba Kanni wootee moom la ñu war a xeexe ji kon nag ñi ngi sàkku góor ak jigéen mag ak ndaw ku nekk ci dëkk bi ak ku nekk ci biti dëkk bi ak ku nekk bitim réew yépp nañ fas yéenee am xam-xam ak lu leer naññ ci daa daaira bi ba man cee dox di nga xamante ne noonu la ko sëñ bi bëggee sëriñ abdourahman bu sa yàlla na suñu borom yokk ay leeram bu baax a baax a baax moo ñu moo ñu moo ñu sosloo woon daayira bi joxoon ñu aw tur joxoon ñu ab leetar waxoon nañu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen ñi nga xamante ne maa ngi yéen a bokk sëñ Massamba Kanni maa ngi leen di maa ngi leen di sant bu baax a baax te di leen ñaan te di soññee bu baax di joxe ndigal ci mbooleem bunt kër sëñ ma Massamba Kanni yépp ñu ànd fas euh, ci daayira bi nga xamante ne moo fas seene ànd ak man ci liggéeyu sëñ Massamba Kanni bi gannaaw su ma leen digalee nag ngeen jaamu yàlla te te déglu euh, ay ndigal te bàyyi daw ay tere nañ maase dox ci li nga xamante ne mooy daayira bi jox naa bunti kër sëñ Massamba Kanni yëpp ndigal ñu soññ seeni bokki taalibe ci liggéeyu sëriñ Tuubaa yi booba ba tey nag ki ñëpp ku ko xame koo xam ne wuutu nga ko fi itam loola nga ca loola nga feddali ba sëriñ ma Cheikh Mouhamadul Fadal mii keroog ba mu toogee lam ca teg rek mooy yabal sëñ Cheikh naa bu sa mii jëwrinam daan ne ko dama bëgg daayira bi nañ dajee te dajee boobu yabal naa la fa nga soññeel ma ci daayira boobu te xam ne daayira boobu ñoom man laa man lañ am te may itam ñoom laa am kon loolu nag ab soññeel bu baax a baax a baax ci la mu war a def te ñu xam ne daayira bi ci nun mooy kenn ku nekk am na wasila ci kër sëñ Massamba Kanni waaye tey bu seex bu seex bu sëñ seex Mbacke Ahmadou Mbacke eh, moom sëñ Abdou Khadir joxoon ndigal seex Mouhamadul Fadal mu war a dem ca tool yee saa ku jóg da ngay dem sa kër sëriñ waaye boo jógee sa kër sëriñ saa boo fa déparé kër sëñ seex Mouhamadul Fadal nga jëm. seex Mouhamadul Fadal mi fi toogee jotaay sëñ Massamba Kanni itam saa bu déparé mbooloo moomu ma nga jëm ca seex Mouhamadul Fadal mi nga xamante ne moo fi toogee jotaayu sëñ sëñ Mbacke Kanni di waajuram kon nag loolu mooy daay mooy solos daayira bi nañ xam ne kenn fu waay nekk teewut nga mën a amul daayira ci sa kër sëriñ waaye nag daayira bii moom mooy jumtukaayu sëriñ Massamba Kanni ñi ngi ciy soññee bu baax a baax a baax di ñaan itam suñu borom defal ñu ci tawféex ba lépp lu sëriñ bi bëgg ñu ñu ñu ñu ñu man ko muy bokk di yalwaanaat bu baax a baax ñu mbokki taalibe yi ndax dëgg mënut ci askan wi dara so askan wi ñu ci am ay jafe ñu ngi ci toogoo ki jafe-jafe bu baax a baax a baax kon nag am nañ jafe-jafe itam fajukaay ndax ku nekk xam na ne fajukaay itam xaw na fee sori ba tax na saa bu nit waree am e, dem e, am war a faju mën naa am jafe-jafe pour dem fa muy fajoo kon nag bu fekkee dañuy am ay soññe yu jógee ci kër sëñ bi ay ndigal yu jógee ci kër sëñ bi ñu koy jottali bokki taalibe yi ñu itam war nañoo jéem a xam jafe-jafe taalibe yi ba àggee ko kilifa yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa